wa rahmatullah waa groupe bi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal bépp jullit ñu ñëw ci seen darsu tafsir incha allahu tey ñu commencé ci aaya 31 ak 32 e, ci suratu ali muy wax na qul in kuntum tuhibuna allaha fattabiuni yuhbikum allah wa yaxfir lakum zunubakum wallahu gafurun rahim qul atiicu llaha wa fa in tawalaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin li muy wax foofu muy topp yàlla ak eh, walaawu eh, wane ne topp yàlla ak féetoo yàlla mooy li nga xam ne mooy cosaanu bëgg yàlla dëgg dëgg dëgg ndax eh, ñenn ci nit ñi dañuy wax ne ñoom dañoo bëgg yàlla ak yonent bi waaye nag ñu gis ne duñu topp dara ci ay ndigalam moom yàlla ak yonent bi te it euh, duñu euh, topp lii di yoon wi nga xam ne mooy yoonu topp nga leen di gis rek tey euh, ñu nekk ci xontu xuntume lii di attey ah, sharia nekk ci xuntume loolu nag nekk di melokaan woo ne melokaan wu la ak wi nga xam ne moom la charia tëral ak xelit tëral ko mu nekk di xeet ci xeetu yi nga xam ne moom mooy eh, xeetu um, xor sa bopp ndax euh, boo xootee na dama bëgg yàlla danga ko war a topp moom la imaamu Shaafi wax ne taasil ilaha wa anta tuhiru hubbahu yaa ngi mooy yàlla tey feeñal tey feeñal na danga ko bëgg hada la amri fil qiyaasi badi lii de buñ koy nattalee ci xel daal dëgg-dëgg daal lu yéeme la law kunta tushiru hubbahu la ataatahu su fekkoon ne dëgg-dëgg da nga bëgg a feeñal ak bëgg bëgg yàlla tam dëggu si yow da nga koy topp ndax innal muhibba liman yuti o muti o ndax ki nga xam ne dafa bëgg yàlla da koy da nit ki ki mu bëgg daal da koy war a topp dafa war a lënkoog moom da ko war a waayoo da ko war a suivre ñaari woo nag wax la eh, am na xolama uy nañ am na sababu nu sol yu bari te eh, nekkut loo xam ne lu eh, léeg-léeg ay mbir yu bari yu niroo wàcc aaya aaya alquran ñëw bu ñëwee tontu yooyu yëpp motax asan al basri wax ne ak ibnu jurayh ne am dafa amoon ci jamono yonent sallallahu alayhi wasallam ñu waxana yonent sallallahu alayhi wasallam ñun dañoo bëgg yàlla ak yonentam bi yonent sallallahu alayhi wasallam nan nañu na yonent sallallahu alayhi wasallam dañoo bëgg yàlla ba yonent sallallahu alayhi wasallam nan na leen ñu nit bëgg nañ yàlla bu ko defee yàlla wàccee aaya boobu qul in tuhibbu in kuntum tuhibbuna allaha laa tuhibbuna la fattabi'uni yuhibbukumullah waaye buñ demee ci imaamu eh, ibnu abbas dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa mas taxaw ci Quraysh fekk ma ngi ca jàkkal masjidul haram fekk ña nga fa samp seen xiram ya eh, sampal ko ay neni baaba njool jël ay baamu neb den baaba njool teg fa jël eh, ay takkaay takkaay ku ci si noppi ñi nga xam ne ñooy ñooy xërëm yi di ko sujootal eh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yéen waa Xurays eh, wuute ngeen nag lii di yoonu eh, millata abikum Ibrahim wa Ismaïl seen yoonu baay Ibrahima ak Ismaïla seen maam Ibrahima ak Ismaïla wuute ngeen ak ñoom Euh, laqad kunna laqad kaana alal islaami ñoom dañoo nekkoon ci yoon woo xam ne mooy yoonu islaam mooy yoonu jébbalu ci yàlla Quraysh na ko yaa Muhammad innana naabudu haasihi hubban lillahi dañuy jaamu xërëm yii ngir sopp yàlla li xaribuna ilallahi sulfa pour ñu jege ñu ca yàlla ak jegeel yàlla wàcce na qul in kuntum tuhibuna allah wax leen ne su fekkee ne bëgg ngeen yàlla fattabi'una yuhbibkumullahu na ngeen ma topp yàlla bëgg leen ibnu abbas ba léegi bi ñëwaat na ci beneen riwaaye mu wax ne yahud yi ba ñoo waxoon ne ñoom ñooy doomu yàlla yi ñooy soppee yàlla yi la yàlla wàccee subhanahu wa taala aaya bi falama nasalat ardaha rasul sallallahu alayhi wa sallam ala yahud wa mu wàccee yonentu sallallahu alayhi wa sallam daal di koy gaaral yóni yóni euh, yi waaye nag ñu bañ na na nanguwuñ ko bon ñetti xisaangook yoo xam ne kenn ku nekk dañuy wax ne sababu nu soot bi loolu la bon li mu làmboo mooy yow Muhammad wax leen ne leen su fekkee ne dangeen a bëgg yàlla ca dëgg-dëgg fa tabi on na ngeen ma topp ndax dama ñëw jóge ko fa yàlla euh, sopp ko sopp gu sell xër ci euh, gërëm ak yàlla bon su ngeen bëggee yàlla bëgg bëgg bëgg gu wér bon na ngeen ma topp ndax yàlla moo ma yónnee ci yéen euh, nga gis toujours waxoon naa ko fii ci benn tafsir mooy ne baatu xul wala maa ñu bari dañuy wax ne lu tax mu ñëwee naan ñi xul waxal ne ya nàngam ñu ne bu ñëwoon rek wax ne in kuntum tuhibuna allah fattabiuni bu ko waxoon wax na jottali na waaye na jottalu lépp ndax yàlla def na ko boo demee wax leen na leen mu ñëw na leen yàlla wax na ne bon bu waxutoon ne ne ne ne e, wax jamatul mooy qul a'uuzu bi rabbi naasi qul huwa allahu qul a'uuzu bi rabbil falax yooyu maanaam ñi nga yónni sa doom na ko demal sa baay diw boo demee ne ko sama baay nee na boo demee danaan bàyyi diw mu ne kaa mu ne sama bàyyi nee na nee na yooyu mooy xul bi bu ko waxut mën naa wax la bàyyam wax rek bu bañ ko wax waaye boo boobaa matalut moo tax yonent bi dañ ko yónni pour mu wax lépp moo tax bu ñëwee bu ko yàlla ne ko boo demee nee na mu ne yàlla nee na loolu loolu fi indi xul yi xul wax leen ne in kuntum su ngeen nekkee ne tuhibuuna laha di bëgg yàlla yoon wi koy confirmé mooy ngeen topp ma ndax maa yonent bi yàlla fa tabiuni na ngeen ma topp su ngeen ma toppee yuhbikumullahu yàlla yàlla dana leen fay ak topp su ngeen su fekkee ne bëgg ngeen lii di fayog yàlla na ngeen ma topp yàlla dana leen fayee la ngeen sopp te mooy aljana ba léegi firi it am na noonu wa yaxfir lakum sunubakum du xemloo du xem ci foofu waaye bàkkaar yi ngeen defoon te néew na ku dul def bàkkaar bàkkaar yi yàlla dana leen ko jéggal wallaahu yàlla xafurun rahimun yàlla ku mën a jéggale la te it ku am yërmaane la bon eh, pexe am na mooy ne pexe mi mooy ngeen topp ma su ngeen xamut li yàlla bëgg xërëm yéeg yeneen yi ngeen topp yépp baxi leen ko ma tegte leen len yone ngeen ñew and ak man may def ngeen top ji bu boobaa yàlla dana len fay lum len di fayee moy la ngeen sopp moy sopp len moy mooy aljana taxit baal leen bakar bàkkaar ndax na len wor na yalla bàkkaar yu bari yeb na ko ndax it ku am am yermane la di koy feddaliwaat qul atiu allaha wax leen yow yonent bi ne top len yalla wa rasul ak yonent bi top len yalla ci lim len digal wa rasul ngeen top yonent bi ci lim len di firi len digal yalla yi muy def ngeen top ca bo xamut da ngay da ngay top ci gannaaw ko xam yonent bi mo xam mom la yalla xamal mu ñew di len di xamal seen ak topp yalla fi mi dëgëree moy fi mi deggo moy ngeen di def la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di def alquran dafa ñëw di digle di mbëmbëstal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw di ko firi mooy topp leen yàlla ak yonent bi ci détaillé yonent bi mooy détail fa in tawalaw boo leen ko waxee nag bu ñu wanee gannaaw na leen wóor ne bu boobaa yàlla dey loolu d'accord ci man la leen rey waaye du leen rey da leen bàyyi ak seen xel may leen sens pour ñu duggaat waaye na leen xam ne li liñ nekk de yàlla gërëma ko fa inna allaha wër na ne yàlla laa yëxbul kaafir na bëggul ku kuy weddi xéewal bëggul ko rahmatullah waa groupe bi ñu ngi leen di ñu di leen siyaara di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal bépp jullit ñu ñëw seen